السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على هذه الأمة <clears throat> ببعثة خير البرايا وجعل التمسك بسنته عصمة من الفتن والبلايا wa sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi bi hadiyihi ila yawmi diin mbokki jullit yi ñuy déglu sunu kàddu di bawoo fii ci Safina FM 98 point 2 Tabarakallah nogi nuyu mbollem auditeur ak auditrice su bi tabarakallahu di nuyu yit kilifay radio bi daleko ci cheno Hamidou ban ak mbollem njabot gi ko wër di ko ci mission bi di nuyu sunu directrice xaaja eh, ñuma ba di ko jaare ak mbooleem ñi ko encadré ci wàllu technique beeg yi ci aju yëpp di nuyu tabaarakallahu soppe yi surtout soppe yi safina di leen ndokkeel ci guddi juddu yonent bi nga xam ne eh, jàll jàll na jàllul ndax comme dañu wax ni bis bi bisu juddu bi màgg na ba yóbbaale semaine bi semaine bi it faf màgg ba yóbbaale weer wi weer wi sax faf màgg ba yóbbaale at mi kon nag bu ñu yeboo rek ni faf giiru dund rek benn yoon yonent bi moo moom lépp liñ ko waxe won ci waxtan yi passé ci misal yi sunu mag ñu bax ñi def cheikh ma cheikh saadu abihi radiyallahu ta'ala anhu ni mu ko tënke rek ni huwa al muradu min jami'il al waaw mom moy nam nam ci ak mbinde fi huwa al mukarramu bi izzi sabqi moom la terale yi jiitul tofal ci ñepp kon nag bu ñu nee bés bi semaine bi weer wi at mi diiru dund euh, yayoo ko di ñaan yàlla nangu jaamu yi ñu fa def di ñaan yàlla it jéggale rëcc-rëcc ya nga xam ni du ñàkk nit moom moom la jafe ci moom léppam weex tàll tàll tàll du ñàkk mukk mu am ay tâche yoo xam ne benn nga tey ko walla nga ñàkk koo tey waaye yàlla ni mu mën a jéggalee bàkkaar yi nga teyul noonu la la mën a jéggalee bàkkaar yi nga tey ndax xaafir la rafuur la xafaar la ñetti siixa yooyu yëpp boo gisee mu tëggu ko am na lu muy jàngale boo demee ci asmaaillaahil xusna muy turam yooyu ñu tuddee turam yu rafet yi donte benn turam bu ñaaw amul baatu bi firi njéggal tëgg nañu ko ci ñetti siixa xaafir xafaar xafuur buñ ko doon peser ci ay balance xafuur moo gën a diis xaafir topp ci xafaar topp ci te yooyu yëpp ay xeeti système ci njëggal ni bàkkaar yi wuutee ak defin yi wuutee ni ak intention yi wuutee ni bu ci nekk rek am na benn tur bu correspondre ak na mu la mën a saytoo ba jéggal la nga xam ne kon jéggal rek a ko ñor comme jaral na ko yooyu tënk yëpp am na yéenay jéggal te luñ jéggal rëcc rëcc yi imaamul Ghazali nee na baatu xafara bi firi jéggal na nee na piréem dëgg dëgg dëgg xaqiiqi mooy satara jéggal na mooy suturaal na di baatu xafara boo ko dee firi firim tasawuf firim mystique neel satara rekk waaw boo demee ci mun jiidus sufi yi nii ñoom bu ñu koy firi satara lañuy wax xafara duñ ko taawil mu ni baatu jéggal euh, nee na bu ñu koy firi suturaal lay firi mu ni yàlla ñeent sutura la prévoir pour jaam bi ci àdduna juróomeel ko àllaaxira mu dellu ci maanaa bu jéggal nee na sutura bi jëkk yàlla defal ko jaam bi nee na yi la yàlla tere lu mel ni kiñaan mbañeel siis jikko sew yi nga xam ne xolo xola koy garde yàlla tere la ko tere gu wér nga am dëgër bopp wala càggante walla nattu bu toll ni bàyyiwoo ko waaye mi ngi sa biir xol surtout bañ nit walla noonu ko nga def ko ci sa biir xol su doon koo dajeel loo ko ëmbal bu la xoolee bu xoolee sa dënn bët bi fëll ba jàll ca xol ba ba mu gis xol bi ba xam li nga ko ëmbal kon dundin yu du neex mu suturaal la ba loo ëmbal nit mën na koo bañ a xam ba bang koy trompé loolu la yonent bi junj ci benn xadis ni law taka cheftum maata daa fantum bu ngeen wuññente woon du ngeen robante c'est-à-dire bu doon ku ci nekk tey li nekk sa xolu moroom yaa ngi janoog moom di nga gis mu ëmbal la loo xam ne di ko jéppi ba bu dee doo ko rob la ngay bëgg mu bàyyi ko rek tan yeeg ak ak xaj yi ko yonent bi tënk ko nag ci law takaa cheftum bu ngeen wiññeente woon ku nekk li ci sa biir génn ni fàng maata daafantum du ngeen robante waaye dangay ngay nit koo xam ne bu ñu la ko tëraloon nga rendi ko yéenewoo ko dara lu dul toroxte yàlla xam ni lii bu nee fàng nekkin wi dootu neex mu suturaal la ba ba ba ba kooka du ko xam mu ni benn suturaango mu ne sutura ñaareel bi mooy yàlla mi bind nit da cee def ay organe yoo xam ni mooy saytu dundam mooy butit yi nga xam ne ci la ndox di dem ak lekk ak yépp nga xam ne ay secteur la ci biiru nit nga xam ni li arab di wax al ama ama ama u daqiqa ak ama ul ghaliza ci xeeti butit la yu ne ci biiru nit butit yi nga xam ne dafa dafa am jëm te tal te mën a def la ñuy wax amaul xalisa yi nga xam ne nag dafa nekk benn buum boo xam ne boo ko rawar ci woon mën naa nekk ay metri mètre mètre la ñu tudde al ama moom la ñu tudde amaul xalis euh, daqiqa mu ne yooyu yëpp nga xam ne nag yàlla préparé na ko ci nit te loolu rafetul ci bët mu fexe ba installé ko ba mu jekk mu jël benn der teg ci kaw muy biir bi Eh, ba bo sumé ko won sax donte yaramu neen rafetul mo tane butit yi don feñ mu neubal le butit yoyu ba kenn gu ci beut nga mën sangu ba set solu diwu dem ci bir mbolo calmement te dara du le perturber nee sutura la sutura la kay ndax yalla mënoon na bañ ci defante yeb bàyyi la nga rango sey butit fo jëm boy tok boy dem xew sax da ngay tok ci ses xëc benen ses jor ci yenn butit yi boy dem bebaru ko moy moy wat moy watetu ma di ko ci benn conférence benn goor ni ma doom lol de ba amone xex jeex ma ko lay kon xex jeex nde da ngay jot ak nit rek mu dal ngab dap butit gi rek daw ñu naan det det det moni ni sutura la muy ñaareelu sutura mu sutura ñettel bi moy dafa am yumu téré lu mel ni ma jël ci benn exemple njaaloo ni la tere naa ko indi ay sanction yu wér yoo xam ni moom la ci gàll wax ni bàyyi leen ko système bu bon la la taqrabu zina bu leen sax jege ko innaha kanat fasha wa saa sabila yàlla ni bàyyi leen ko bu leen ko jege système bu bon la nga dëgër bopp ba seytaane manipuler la ak sa bakkan ba nga dajeeg jigéen wala boo dee jigéen nga dajeeg góor ngeen dem ci béréb boo xam ni ah la ngeen bëgg a def mën ngeen ko faa def te kenn du leen gis ngeen dem ba foofu làqatu def la ngeen di def kenn gisu leen benn nit loolu sutura la mu ne sutura ñaareel baa ndax Lola bu doon fang fangaral sa nekkin dina xajam sa réputation dina yàqu nee na loolu sutura la waaw muy ñetti sutura yooyu moo nekk ci àdduna mu ne nag beneen bi ci des nag mu di ko xaare ëllëg mooy borom bi yëpp d'accord na ci ni dina sikkimu nit sëpp ni ko bàkkaar sàngam maa ko tere woon maa la ko tere te yow def nga ko bés sàngam ci waxtu sàngam dama ko tere li may jëkk a def mooy dama lay laaj kan moo fekkee bàkkaar boobu jàmbi ni ko suturaal nga ma ba benn mbindeef fekkewu ko mel ni yow rek laa xam ni dara du la ump nee na yàlla ni ko nag duma ma suturaal jaam di xaw na ma la suturaale woon ba kenn gisu ko baal naa la Moni, bo de tawil ghafara xafara bi firi jéggal na traduire ko satara bi firi euh, suturaal na neena na sutura yi moy yu aduna ben bi moy bu alakhirah. kon nak yalla jegal ñu rek rek yoy yep ndax yonent bi amna ay amna ci borom bi maqama bu kawe kawe bu ko may ku barkeelu ci moom rek yàlla dimbali la ndax wax na yoo xam ne yenn tuy jëkk yi sax ñemewuñ ko woon wax ndax àgguñu woon foofu ci boobu dimension bokk na ci li mu wax ni aati baabal janna yowma alqiyaama fastaftaxtu fa yaquulu alxaazinu man anta fa aquulu muhammadun fa yaquulu bika umirtu allaa aftaxa li ahadin qablak daf ni man Muhammad day bis penc dinaa ñëw taxaw buntu aljanna bu ma ñëwee damay ñëw rekk ni gardien bi ubbil ma xam nga ñëw ci bunt ni ubbil ma am na noo tollu mbaa am loo siq ak boroom kër ga mbaa muy sa kër bokk mu ni ma ni gardien bi ubbil ma daf ne aati baabal janna dinaa ñëw buntu aljanna yowmal qiyaama bisu taxawa bi fas taxtu dañ ko tëgg baatu istafaala xam nga fa aftaxu am na ma ubbi waaye fas taf taxtu ma ubbilu ma ni nañu ma ubbil nee na bi ma ko waxee fa yaqulu alxaasin kiy garde safara am nañu ni ridwaan la tudd sax daldi ma ni man anta waaw yow mii ak bii sañ-sañ ñëw ni ubbil leen ma ah waaw yoway kan fa aqulu muhammadun mu ni ko muhammadun man maay muhammad su fekkoonte ni ku ñuy présenté la pour nga door koo xam du yem ci muhammadun rek ni pat waaye xam na ni bu bu dee muhammadun tur wi laaj tur gëndaloo na aljanna ku ko gisul it gëndaloo na ci sa kaw du fa nekk naan man la yàlla yónneeg maay doomu abdullah yeeg maay bëkk xuraysh ak maay nabi yu rahmateeg yooyu yëpp day gudd moom xam na ni bu ne muhammadun rek mu ni ko ah waaw kay naka mu ni ko man may Muhammad mu ne ah waaw kay bi ka umirtu yow mii lañu ma digaloon allah aftaxa li ahadin qablak buntu bii bu ma ko ubbi mukk ubbil ko ku la ku la jiitu waaw bu ma ko ubbil kenn jëkk yow loolu boobu teraanga ku ko am fa ngay ubbilu sa daraja sa màgg mën na laa may ku la sopp mbaa barkeelu ci yow nga ubbilu pour moom kon tabaarakallaahu ñu dem màggali bisu juddu yi ci dëkk yu bari ñenn ñi defe ko ci biir dëkk bi dakaar ñenn ñi dem ci région yi ñenn ñi dem ba ba marok fa Cheikh Tidiane Chérif tëdd defe ji ko fa waaw ndeysaan moom ku nekk rek ak fa sa yaakaar ëppee rek ak fa sa xol gën a màcc jëm rek nga daw jëm waaye ku ci nekk rek eh, bu yàlla tas sa yaakaar ndax ki jóg di wuti lu baax moom yene ko mu jot ci rek mo ci am solo comme lu bax lay wut fu mu ko man di wuté nak moom seen cheikh don wax nan bu tolérance amul du bax ndax nee dama dem madinatul munawwara ma ñew ci boru rawdu yonent bi nee na ci haram bi nonu li wër amna ay cantine yu fa nek ma bëggona raser sama karaw Euh, ma ñëw nee na di laaj kan moo fi mën a wat wateef gu rafet ñu tegtal ma benn euh, chinois bu nekk ci xaram bi yor benn cantine coiffeur la nee ma dem ñu ko xëltu jiidul xalaqa mooy ndax yow sa wateef mën nga wat wat gu rafet ma laaj ko euh, chinois bi ni ko ndax mën nga wat wat gu rafet hal tujidul xalaqa mu ni ma am di barakati maw nee na mu ni ma waaw waaw giñ naa ko ci barke maw maw situm moo nekkoon Chine mooy président wu Chine moom la giñee mu ni mu ni mu ni naam bi barakati maw mu ne xoolal lii rek ñii nga xam ni ci ka booru du yonent bi ku fakk talu rek sayyiduna Muhammad ngay tudd moom mu ne ca du ba di liggéey jéggi fi yonent bi di giñe mawoo mu ni moo tax bu tolerance amul dara du dox mais bu boobaa bu fekkonte ni moom mi ko wax nii amul tolerance du fa watu day daal di ni kii daal kenn xamul nitu lan la ku nekk fii di giñee ku dul yonent bi man doo doo laal sama bopp waaye terewul mu watu jox ko wërsëgam dem loolu mooy tolérance waaw waaye boo nekkul ko tolérant nag yow doo mën a lépp ku nekkul ci li nga nekk rek sa noon la waaw ku ku gisewul ni ngay gisee it sa noon la waaw doo nangul kenn xalaatam doo nangul kenn gis-gisam doo nangul kenn pas-pasam yow daal yow rekk ni ma gisee ni la ni may waxe ni la ni may déggee ni la donc te yëf yi du noonu yonent bi sallallahu mu ngi noonu ci wàllu jàngaleem ci wàllu mbaaxam ci wàllu ay orientation bari na lu muy faral di digle ragal yalla te ragal yalla it bokay def Dora ragal yalla dañuy ragale rab bu ay wi fad lu melni gaynde nga xamni ni boo da ngay daw wan ko gannaaw non lañu ñuy rab bu ay waye ragal yalla mom li ci gëna doy war soko ragalé da ngay daw wuti ko di def ay effort yu la ko gëna jégelo ragal rab bu ay nak boko gisé da ngay daw wan ko gannaaw di ko gëna sori waye bu dé ragal yalla da ngay daw wuti ko pour gën ko jégé waaw mooy li góor gi doon wax nii boo demee ci àll bi rab yi rabi àll yi nga xam ne ci pax yi dëkk nee na rab wu rab wu ci gën a jege paxam moo ëpp wóolu mooy gën a wóolu mooy moom la xelam di gën a dal rab bu jegee am paxam la xelam di gën a dal nit nag bu jubee am paxam la xelam di gën a daladi mooy bàmmeel yonent bi bari lu muy wax baatu ragal leen yàlla wax na ci ni ragal ko foo mën a nekk ci sa wax ak sa jëf te bu la seytaane nattoo wala sa bakkan ba nga def lu bon gaawal def lu baax mu muur ko ittaqillah xaytuma kunt ragal yàlla fo ragalal yàlla foo nekk bi sa yi alxasana te lu bon lu bon mun ta ñàkk xëy na waaye tofal ca gaaw lu baax wa xaalixin naasa bi xuluqin xasanin te ngay jikkoonte nit ñi di jëfleenteeg ñoom boole koog jikko ju rafet te loolu day confirmer wax loolu li mu wax ni bu istu yónni nañu ma li ma ngir ma complété makaarimal axlaax jikko yi nga xam ne dafa tedd moo tax muy jàngale waale ci jikko ju tedd wax na itamit ne sax abbas اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا نينا رجل يالا تي لو باخ بول كو خيب لو باخ اوب نا خيب نده لو كو خيب خيب من نا توتي توتا يم بوبو ديكو خيب يالا بيك سي با يوبو لا تي waaye boo ko liiree boo ko jàngee ci beneen côté bi itam mooy lu bon itam ëpp naa xeeb bu bu mu bu mu tuuti ba nga ni ah mbon gu ndaw la ndax mbon gu ndaw bu la mënee yóbbu saware rek ndawatul tuuteetul tudd na tamit ci baatu ragal yàlla boobu ittaqullaha waadilu bayna awlaadikum ragal leen yàlla te ngeen maandu ci seen diggante doom yi maandu xam nga doom boo takkee yaayam indi ci kër gi di ko dundal di ko wodd di ko dëkkal ba yàlla sarax la ci doom boo gàttee xel da ngay def ni sa alal la bu la neexee banque def ci saak bu la neexee def nu la neex bu la neexee nu la neex ngay comporté wu ak ñoom bu dee bu dee mbooloo lañu nu la neex ngay dundeek ñoom te fekk ñoom ñaar ñépp yaa leen jur ñu ngi jóge ci yow jaar ci seen yaay juddu nga xam ne ya yéenay sababu ñëwam ci aalamul wujud loolu comme ñoo yem nag jaaruwaay ci yow ñoo yem wàccuwaay mën nañoo comporté comportement boo xam ne du la neex waaye moom bu boobaa moom doom ji moo wàcc yoon mais yow bul wàcc yoon mooy nanga nga maandu loola da koo tënk rek bàyyi noonu waaye boo ko médité woon taw yi ko lu yaatu lay doon taqullaha na ngeen ragal yàlla wax di lu te ngeen maandu na awlaadikum ci diggante seeni doom waaw sedd ci yàlla bu baax nee na ba tey ci wàllu ragal ragal yàlla mu ne na ngeen ko ragal te ngir ragal googu sax mën a def benn cicatrice ci seen biir xol ni ngeen ko sàmmee di julli seeni juróomi waxtu julli gu rafet tey woor weeru koor te bu ngeen amee alal ngeen génn ci azaka e, loolee bu ngeen ko defee dina teeyal seen seen jëm te ñi yàlla jox responsabilité jox leen ndigal jox leen yenn pouvoir yi ci digle tere ngeen di éviter wuute ak ñoom maanaam ngeen leen di di di di topp bu ngeen ko defee di ngeen dugg ci seen aljanna borom ittaqullaha wa sallu xamsakum wa suumu shahrakum wa addu zakata amwalikum taybatan biha anfusakum wa atiu daa amrikum tadxulu jannata rabbikum ñi yàlla jox ay ndomboy tànk ñu jiitu yàlla yéen di jiital yàlla leen jiital am na lu leen yàlla sant ñoom bu ñu ko defee bu ñu ko deful yow mi wala topp rek ni nga leen war a jàppe nga jàppe leen noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noppiwul toogul ngir jàngale yu am solo yu muy jàngale orientation yu am solo yu muy def ngir mission bi ko borom bi sant mu dem ba borom bi ni ko jaa jëf ni ma ko bëggee woon defe ko noonu te wax na ko ko al أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا boo نكت نكت nekk ci mission bi ba yàlla ni ko diine ji li ko waroon a defar yépp ak li ko war a sàmm yépp sa gannaaw yàlla suturaal naa la jàppale la ba mat na kon nag loolu li muy tekki mooy sama xéewal ci yéen mottali naa ko bis ni ki tey accordé naa diine bii muy diine bi nga xam ne moo gën a wér mooy seen diine it moom laa leen sédde al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakumul islaama diina kon tabarakallahu mu dee wax ci njàngaleem ak orientation bi ni taraktu fikum ma intamassaktum bihima lam tadillu ba'di xamone na ni jamono dina dem ba lëndëm lend lënd lëndëm jaxasoo am te lii xew xam na ni jamono daan na ñëw mu xew mu jaral ko yebal ab yonent yonent ba ñëw orienté waat nit ñi ni leen déedéet yoon wi ñu leen tegoon jàdd ngeen ko du noonu nii la yonent boo gis mu ñëw rek ci cent vingt quatre mille prophètes yi jamonooy dem ba mujj jaxas njaxas am yonent daal di dellusiwaat tegaat leen ci yoon bu fi jógee buñ demee ba njaxas njaxas ñëw njaxas njaxas ñëwaat yonent daal di ñëw waaye comme yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ni mooy yonent bi mujj kon xam na ni beneen yonentu ñëw ginnaawam te xam na ni njaxas njaxas yi daan dal xeet wu jëkk woowu ba yàlla di yónni yonent dina dal xeetam mu dal di teel a dàkkaafu ne maa ngi dem nag waaye njaxas-njaxas boobu bu dikkee bàyyil naa leen loo xam ne bu ngeen ci ngooyee rek du ngeen am benn problème du ngeen réer du ngeen sànku du jar benn yonent di ñëw di leen orienté waat ñu ne ko lan la mu ne alquran ak sunna sunnaam mooy li mu wala mu def ko wala mu digle ko wala ñu def ko ci wetam mu ca leerlu ca mu ni taraktu fiikum bàyyeel naa leen <clears throat> ma in tamassaktum bihima loo xam ni su ngeen ko jàppee téye ko lan tadillu baadi du ngeen sànku sama gannaaw ñu ni ko lan la mu ni la téere yàlla bi wa sunnati ak sama sunna loolu nag dalay daldi daal soññ ci jàng ndax téere bu ñu la ni bàyyi naa ko yow boo ko téyee doo réer du téere boo xam ne xamoo ca dara wala jàng nga ko nii rek ci yax bi dem te xamul la muy tekki te dégg alxuraan yi tamit laajul njàng mu ndaw jàng wu ndaw jàng wu xóot la laaj te yaatu ndax lu toll ni cànkute ni mu garaawe ak njub ni mu amee solo nga fas yéene tënku ci njub dëkk ca yàlla musal la ci cànkute la la cay téye ba tax loola mën a nekk loola mënul nekk lu semple mënul nekk lu woyof mënul nekk lu yomb moo tax alquran dang nga koy jàng donte yonent bi nee na kun aliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban wala tukuñal xaamis doonal borom xam-xam ñëpp xam ni boroom xam-xam nga doonoo ko nga dem di sàkku ji xam-xam doonoo ko nga di ko déglu ndax boo yàggee déglu di nga dégg di nga di nga xam doonoo ko nga nekk ku bëgg te bul nekk juróomeel bi Juru bi ñet ñet ñent defu la am du borom xam-xam du sàkku xam-xam deglu ko bëggu ko bu ko defé kon alquran fay laaj nga jang ko ba xam ko ndax waxon na len ci waxtan yi ni yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam sallam daf ko defaral bopam ni ko waaw kay ni la la bëgge ni la bëgg nga melni ni yama neex ni kon ñima la boole li tamit ñuy saw xet defal ma leen ni ma leen ni ma la def defar leen yonent bi xam ni defar nit ba mu mel ni jëmmam moom ni ko yàlla defare yombul yàlla ni ko dinaa la jox benn notice boo xam ni ci ngay référé wu pour defar nit ku mel ni yow bu ko deful ba mu mel ni moom it ndax jagle gu ko yàlla jagleel dina ko defar ba mu mat ko nawle mu ni ko notice bi mooy ban mu ni ko alquran notice la boo xam ne yàlla moo ko wàcceel yonent bi ni ko defare ko nit ñi xam nga gis appareil ñu jox la appareil bu bu sophistiqué bu bees jël benn kaye bu tuuti wala benn bloc-notes bu ndaw boole ci ni la fii ngay xool pour soo ko bëggee installé nga installer ko soo ko bëggee taal nga taal ko boo ko bëggee fay nga fay ko ci nangam yàqoo nii lañu koy defare lépp ñu def ko ci benn notice jox la ko mook appareil bi nit itam benn appareil la boo xam ni notice bi nga xam ni moom la yàlla wax ni ci lañ koy régler mooy alquran du lenn lu alquran su boobaa nag danga koy jàng wala soo ko jàngul itam ki la koy interpréter na nekk koo xam ni ku ko dégg lay doon ku ko xam lay doon koo xam ni yaa ko yitteel yow sëg njub te yàlla rek tax waaye intérêt boppam taxu koo jóg. soo paree ni ngay jànge alxuraan di ko càmbar noonu ngay jànge waxu yonent bi ndax yonent bi itam waxam du waxu n'importe ki nit moom mën naa wax nii rek nga dégg ko ni nga ko déggee mu jeex mais yonent bi waxam da ci lëmus yu baree baree bari dafa am lu ñuy wax jawaamiul kalim day wax mu gàtt ba pare ëmb ay njariñ yu bari dafay wax itam loo xam ni dégg gu yaatu euh, la laaj wala doo ko mën a jariñoo man am na benn xaddis boo xam ne bi ma koy door a jàng dem nag moom ay at dama ci daan jaaxle dégguma ko waaye benn bis laa dégg Serigne Cheikh firi ko firi boo xam ne ma ne waaw kay kon daal maanaa bi mi ngi door a ñëw ndax yonent bi def ni kaadal faqru an yakuna kufran mu ni ñàkk ñàkk daanaka moo gi yam <coughs> ma ni waaw ñàkk moom yonent bi boom nu mu mën a waxee lii est ce que addis bi na ndax moo ko wax ndax ñàkk moom nit du ko teg boppam euh, yalla mooy tege ñàkk kon kay lu tax mu wax ni ñàkk moo kéefare yam te yàllaay maye di xañe ma di ci xalaat nag waaye li sëñ Cheikh naan koo xam ne boo xëyee jaaxle weddi warul la jàng yi dong la war koo xam ne saa boo xëyee ndax jaaxle jéem a ba loola jaaxale te nga découvrir ko fexe ba lijjanti ko loolu mooy safara tamit paa ngay toog di diingat ak di weti ma ne ah man daal xam xam bi kaada al faqru an yakuna kufran daal kon dégguma ko ba benn bis rek ma dégg sëriñ Cheikh di ko ci waxtaanam mu di ko tekki mu ne yonent bi nee na kaada al faqru na yakuna kufran mu ne yonent bi nee na ñàkk goo tey moo kiifaree ma ne ah, waaw kay kon film dafa am fa mu banku woon waaw ñàkk goo tey moo kii fere yam ñàkk goo tey mooy mooy yaafus rek tëdd rek defoo effort jéemoo dugaloo génnewoo nee na kon boo ñàkkee yaa ko tey waaw waaye bu la yàlla joxee wér jox la xel nga sabablu di nga am lu ni gàññ mbaa bu néewul gàññit dina la satisfaire waaw nit lu mu woyof woyof lu mu gàtt gàtt wërsëg war a mën xëy am lu mu añee am lu mu reere ci journée bi ndax bu dee lu cher nit mën na ko am bu dee lu yomb nit mën na ko am waaye daal ab jaam moom xëy ba jant so te mënut a lijjanti lu mu añe mbaa lu mu reere loolu yàlla tërëwul tëralewul noonu àdduna maa ngi koy nettali dem ba xale yi ñuy ree benn waaye ma dajeeg moom mu yor benn mbuus mbuus def ci cere Euh, euh, di di koj nit ñi ci tali bi mu koj ma ni ma sëñ bi dama yore woon cere xiif lool bëggoon ku ma dimbali lu ma jënd suukar rek meew ndax damaa xiif ba sonn ma ne ko xiifoo de dama la man a waatal daal mooy xiifoo waaye euh, su boobaa dangay xam ni nit lu ko suur te du ko lor yomb na lu ko suur biiram fees ba mu géex te du ko lor lolou mom yomb na bu ko defé nga jang alquran jang hadith ba am ci deg gu yaatu su boba nak nga dëgg ci sa tank ngir meuna dal di dund nak te dalal sa xel te ñeme nak wa bi neena neena min husni Islamil mar'i tarku ma la yaani gis nga man addis boobu dama yaakaar nit ñi dañ koy romb suba ngoon te duñu ko seetlu yow li li lay jariñ ak li lay wàññi kenn warul koo gën a xam li lay jariñ ak li lay wàññi war ngaa def tout ba xam ko soo ko xamee nag yonent bi nee na liy gën a rafetal sa ngëm mooy lépp loo xam ni amalu la benn njariñ amul benn importance yóbbuwu la fenn portewu la dara nga bàyyi ko dina rafetal sa ngëm min xusni is sa lislaam min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi bàyyi loo xam ni amul bopp amul geen loo xam ni yow du la porter dara ren ba déwén yaa ngi ci yëgoo ci sa bopp yokkute yégoo ci sa bopp courage ci liggéey yégoo ci sa bopp xam-xam yëgoo ci sa bopp am-am defarul sa jikko ren ba déwén mais loolu da koy bàyyi ak beneen xadis bi ci des mooy xayrul kalaami maa qalla wa dalla wax bi ci gën mooy bi nga xam ni donte gàtt na li nga ci bëgg am nga ko ci gàtt na tegtale na waaw wax boo xam ne dafay gàtt rek dangay day gàtt rek nit nit sa wax ci biir xolu nit ke xel mi rek maanaa bi daal di ñëw rek jeex na nga dem defi leneen waxi leneen nee na loolu yonent bi nee na moo gën ci kàddu moo tax ci ci ci ci eh, Serigne Moussa Ka moom mooy werekaanu Serigne Touba taalif na yu bëree bëri def na taalif na arab taalif na ay wolofal wolofal yu bari man wolofal yi dama koy am di ko di ko liir ndax njàngalem wolof mu xóota ci nekk ak xam-xam ci buntu miraas da cee tënk benn bunt boo xam ni. ci benn bayit dong la ko dugal te amna na boo demee ci mirage am na ci ndax daf ni gis naa ci téere alal ju baay moom ba baay ba làqoo alal ja doom ja yéen ñi nga xam ne jàng ngeen ngeen dem seeti di ngeen gis ci àtte koo xam dafa génn àdduna amul kenn kenn kenn ko xam ne moo ne ci wetam man koo doon lu dul doom ja doom rek la am doom bu góor mu ne nag gis naa mu daal di koy taalif ci benn wolofal la ko def taalif la boo xoolee dégloo wax bi rek xam ne bayit la gis naa ci téere alal ju baay moom ba baay ba làqoo alal ja doom ja tuukur mu jeex loolu moom jarul nekk di xëcc jarul nekk di taw yi jëlal jox xale bi mu ne moom njàngaleem dafa laaj nga nga xam nga xam bu baax waaw mu ne xayrul kalaami ma la dal dalla wax joo xam ni dafay gàtt ba pare tegtale daana ko def moom yonent bi sax ci tontu bi ko te nag day wax rek lu ca yem boo ko waxee lii mu wax la lu ci yem barca barca Aïcha euh, Fatima dafa ñëw ni ko sama tante Aïcha daf maa xas mu ne ko lu mu la wax mu ne ko def ma ni sa yaay Xadijatu bintu Xuwaylid Bikosa sa papa di denc mag la maget na lol la ma wax yenen bi ko lol la wax mu ko ko fayul Fatima nuko numay fayo may da ngay dem niko bi ngay and ak sama papa sama papa magetna. la mu jeex ñaari wax jooju liñ ko wax ak liñ tontu ño même poids loolu la ko yàlla defaloon jawaamiul kalim day wax benn wax bu gàtt xam nga bëri sax boo daanee nit ki rek man nga ko wàcc dem ndax daan lañ lañ sàkkoon ci yow boo ko daanee wàcc ko waaye daan ko pare daal koy rëkk ba pare daal di taxaw këdd ko teg ci xam nga yow yow da nga da nga da nga jéggi sàdd li ñu wax euh, jéggi jéggi dayo moom nga def su ko defee mu ne wax bi ci gën mooy bi gàtt te tare wax ju gàtt tabarakallah yal na yalla déggloo ñu ay waxam mune nak mom yonent bi ci jangaleem yu am solo yoyu ikhtanim khamsan qabla khamsin ma nga len di wax ni ma nga len jurom bu gën ca tollo bu len ko bu len ko sank na gën ko exploiter jari ñoko ndax dama am jurom yu ci top yo xamni euh fokk mu ñew te bu boba fe nga tollo won rëcc na la te doo ko dabaatal ixtanim xamsan qabla khamsin nanga mang jurom yi bala ngay àgg ci juróom yee hayataka yaa dund gawal amna lo xamni ci dund dong la xaj xajul ci de lu dund laaj ci yitte ci jang ci fagu ci mbax ci defar jikko gaaw ci gaaw qabla mawtika bala ngay de ndax bo xese de lem nañu téere bi mom mënatoo am lolou te dund goo gis deen koy dàq te dina ko jot wasixataka qabla saqamika yaa ngi wér préfiteel gaaw am na loo xam ne ku wér doo nga ko mën ku wér di mënu ko ci wàllu yitte ci wàllu jàng ci wàllu faggu ci wàllu doxu mbokk taxaw ci tem tem temm boo demee ba ñuy tëral di tëral la ko yëkkati yooyu rëcc na la te dootoo ko mën a dabaatal gaaw ci wa faraaxaka qabla shughulika boo amee benn temps large temps dugal fa dara bala ngaa dem ba da ndar dara ndar kepp la loo xam ne dootoo ko mënatee def soo amee temps rek am na ñoo xam ne du ñu bàyyi mukk temps libre temps bu vide déedéet fokk ñu nekk ci dara toog grand pass ataaya jaaxaan du ñu ko def dinañu fexe ba heure bu ne am luñ fa dugal am na ñoo xam ni bu ñu nekkul ca liggéeyukaay ba liggéey ñu ngi seen téere di sàkku seen xam-xam bu dul téere sax ñu yor seen journal di xam xibaar yi bu dul loolu sax ñu yor seen kurus di def zikrullahi bu dul loolu sax ñu yëkkati seen téléphone di téléphone jokk mbokk waaye toog rek rek rek rek duñu ko def mu ni nag bi nga amee temps boo xam ne mën nga faa dugal dara dugal ko fa bala ngaa ñàkk temps ndax ñàkk temps gi ñëw waaw loolu la góor ga doon lépp nee na ndënd yi ngay tëgg ba yomal xeyaamee wala gis xàmmee la ndënd yooyu fii ci àdduna nga koy foore soo bëggee bàyyi ba àllaaxira nga ne da koy foor malaaka yi duñ la may foo yàq sa nàkk waaw duñ la may jàmm lépp la rek waaw mu ne ndënd yi ngay jiinoo ba ku la gis xàmmee la fii ci àdduna nga koy foore soo ko fi foorewul nag yooyu yaakaar ne da ngay dem ba àllaaxira di ko foor malaaka yi duñ la may foo yàq sa nàkk loolu moo di faraaxaka qabla suxlika mu ni wa shabaabaka qabla mharamika nee na sa nekk ndaw bala ngaa màgget ak ndaw kattana nga ca xel mu neex nga ca cawartee nga ca yooyu yëpp na nga ko seetlu boo demee ba nekk mag kattan day dem cawarte day dem euh, yooyu yëpp day day day day day lay dëddu mu ni nag eh, boo demee boo demee boo nekkee ndaw na nga profité ci ndaw gi lu ak ndaw laaj ci yitte ci jàng ci fàggu ci farlu nga def ko bala ngaa mage ndax boo màggetee rek loolu da lay daal di wan gannaaw nee na ba tey xinaak qabla faqiik nee na sa am am te nga ci gaaw jëf li la li la war bala nga ñak am saxul de so amé néna na nga réfléchir la nga ci wara def bala nga koo ñàkk na ci de borom xel day bu amé garab guy meññ meññet mu neex ñepp di ko ca ñé bu dee borom xel day day dëgg ca doom ba ba am ci grain suul ko fenn nga xam ne grain boobu bu saxee mën naa daldi di bijji beneen garab gu bees loola delluwaat ci économie denc sax yaxanal sa alal waaye itam des ca loo xam ne nii tamit bu ëllëgee boo duggee bàmmeel ba dekk janoog moom looloo tamit ci la bokk mooy saraxe ci génn ci azaka surtout azaka moo ci jiitu def ci lu baax waaye li may faral di xul ceet am mën a seetaan waaw bés bu ne ngay woote xol bu rafet ak yërmande yor ay milliards yoo xam ne wóoru la na li fii téeméeri at mënoo koo jeexal say doom mën nañu mën nañ cee dund ba seeni sët waaye du jeex nga attan jàkkaarloog nit muy souffrir di dee ndax ordonnance di dend ak xiif di am problème mu location nga denc ko rek di rombante moom gauche ak droite nan ko mbokk na nga def nan ko asalaamaaleykum yal na jàmm na ci yow te muy bëgg de nga man ko may jàmm te mayoo ko jàmm ndax boko ko won mo am jàmm ngay jappo loolu jappo loolu loolu kuko def hadith bi jànguloo ko dégguloo ko waxuñu nga jël sa alal gaspiller ko pass passar pasaree ko waye ndimmal mu ñuy wax ndimmal ñu néew a neew la gis ñi du ko def ndimbal moo xam ne boo dimbalee nit ki mu jekk ba faw xelam lal ba faw fii li ma gis mooy soo amee nga naan man sax xam naa ni lii man naa cee lekk sama giiru dund waaye sama doom yi dem noonu bàyyi leen ci jamono bii te bàyyiwuma leen nag fond boo xam ne nii dinañ ci mën a te sama doom yooyu tamit ah bu ñu fi jógee tey seeni doom xam naa lañ naan maam day bëggub sitam rek yow daal li nga yor ñi ngay dundandool di say nawle nga xam ne yàlla ci mbaaxam ak maandoom moo tërale nii jox la jox la ba nga giijal moom mu xañ leen ndax sañ-sañam la yow sóoraale woo leen xalaatoo leen ni la yàlla xalaate ni la yàlla sóoraale lu dul yow daal bàyyi nga leen fa defatoo leen mbokk bokkook ñoom dara yow daal sa doom nga xam sa sa sët nga xam léegi ñoom ñii nga nekkal nag moom waxoo ci ñoom bu buñ yeboo dund bu buñ yeboo dee nee na loolu boo ko defee bu ëllëgee boo dekkee te damay faral di wax alal da li a dal xel mooy nga partagé ko bu ëllëgee bu la ni na ana alal ja ko mag ko lekk waaye yàlla ni la vous poñee ana alal ji ngay xiin xiin ni mënoo tudd kenn loolu ku ko def yaa dox ci danger kon ñu fàttali leen numéro bi 88 628 10 95 Safina FM. 88 628 10 95 ñoo ngi nuyu nag eh, xam naa dama ko fàtte waaye liste bi moom dëgg-dëgg dinay baax ma di ko yor nag ndax léegi dañoo bari ay ay auditeur nag ak ay soppee rajo bi te xam nga di tudd rek di tudd léeg-léeg nga jéggi koo xam ne da nga naan eh def naa ay waroon naa ko nuyu eh, te fekk sax wax yàlla bu ma sañoon képp kuy auditeur rajo bi wala ngay auditrice dinañ la nuyu sargal la kontaan ci lii ñu nekk nga di ko déglu. te ah am na ñoo xam ne nag moom a ah, ñoom li leen gën a yitteel mooy li ñuy déglu rek bu leen amalee njariñ moom kontaan nañu waaw waaye am na ñoo xam ne nag dinañu xaw a bëgg tuuti ñu du leen euh, loolu tamit ba tey rek wane loolu du dara lu dul rek wane ni yëg nañ la xam nañ ni boole nañ la ci rajo bi sa rajo la loolu tamit dina la ko encouragé dina la sawarloo waaye. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw. madame Kébé Adja Soxna Ndong Noor Foire ah <laughs> allo Badiane na nga def. sant suñu borom bu baax a baax a baax a baax. Ah, ah, yow moom yow moom yow moom xamoon naa ne yow jëkk yow moom yow. auditrice <laughs> dama doon jëkkante sa rajo bi ndax dama gëj a dugg ci ligne bi. wallaay aji ah, yow moom di sant di ñaan rek nag kan. waaw di di leen ndokkee ci gàmm gi ñu jógee. wallaay ñu ngi lay ndokkee ñu ngi lay ndokkee. gàmm gi tubarkalla lépp luñ sa ñaan yal na ko yàlla nangu. amiin amiin amiin amiin amiin amiin. jërëjëf borom guddi ak suñ ko mën a ñaane rek. amiin amiin amiin comme ni nga ko waxee. baat bu am importance. wallaay waaw wax ni seen rajo bi man mooy sama rajo. waaw loolu xam naa ndax euh, rajo bi jàngalekat la. loolu dëgg la nuyul ma seen directrice bu baax a baax. wallaay ñu ma ñu ma waaw toujours ma ko seen wax nag. nuyul ma ko nuyul ma ko bu baax a baax ne bu ngeen gisante di nga ko di nga ko. non non non dafa ma fi jóg te émission bi jeexul parce que <laughs> benn kàddu boo daaneel rek macha allah nit mën na ci jàng lu bëri loo xam ne daf koy jëriñ. wallaay ndeysaan te loolu moo am solo. tey dugal nga benn baat boo xamante ni bi dama ciy contribuer rek mooy tolérance. wax nga dëgg wa tolérance foog mu am. tolérance mm-hmm. waaw tolérance foog mu am. Mm-hmm, mm-hmm. tolérance foog mu am bu tolérance amul rek. coow li bëri. du sotti te ni coow li bëree rek xuloo bee xeex bi jëriñul dara yal nañ ci yàlla. amul njariñ amul njariñ amul njariñ. te boo dugalee tolérance dugal nga muñ. loolu dëgg la. waaw te dugg nga ci bunt yoo xam ne ay livre livre mën na cee génne tolérance ak suturaak wallaay lépp lu ci biir tolérance. wallaay wallaay loolu la. mu ñu yàlla suturaale. Mm-hmm, mm-hmm. yàlla nañu yàlla xeet ci kenn ku nekk di suturaale noonu sa morom. wallaay loolu mooy dëgg amin amin amin waaw bu ñu ko defee. penc mi mm-hmm. dina dox kër yi dina dox réew mi dina dox. wallaay stabilité dina am yàlla nañ ko yàlla defal. looloo am wallaay moo am loolu. yàlla nañ ko yàlla defal ci dara bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yëpp vraiment ñu ngi lay remercier bu baax ndax yéen yéen rek tax ñu gën a sawar ci waxtaan yi parce que boo dee daje koo xam ne lu mu dégg da koy jëfe te bu ngeen dajee nga xam ne mi ngi jëfe loolu la ci wàllu mbaax wàllu yiw wàllu jokk mbokk wàllu yitte wàllu jom wàllu encadré sa njaboot nga nekk ci koo xam ne yow exemple nga no xam ko bu baax a baax waaw ndoo ndoo yéen donc exemple nga ci famille ñu bokk macha allah ak ci réew mi yëpp sax nag macha allah te te yaa ngi terminé nag fu am solo mooy ndimbal waaw loolu dëgg la ndimbal ci am solo la ndimbal tàmbalee ci mbokk yi man ci dama mënta dégg nit di yor ay milliards waxuma ay millions bàyyi ci sa gannaaw ay mbokk yoo xamante ni bu ñu añee duñu reer. wallaay moo moo moo nekk fii bataa di cëpp cëpp di layu lay lu na nga dugg ci yaa nga bàyyi ci taw ba sa mbokk moo xamante ni bii xiif na. Mhm. xajewul mhm. doomam jàngiwul. boo càppati woon te la nga am ne serait-ce que asaka mhm. mu dem ca. du ca dem fa mu war a dem. duñu ko def kooku dina soxla. duñu ko def dañu ko dul tal. dañu ko dul tal sama moroom yi dañoo dañoo a bari ci yàlla nañu yàlla suturaal daal ci may ñu dal. amiin ñuy delloo xel ci li ñu suñu diine a amiin amiin amiin alal bi alal dong la duñ ko fi rëcc. amiin amiin amiin amiin amiin mënoo cee def lu lekk ak naan te ñi ci lekk lu bari sax fi mu nekk nii. Uh-huh. feebar nañu. loolu dëgg la lekk lu bari da ngay xëy xëy ñu la baal li bàyyi li bàyyi li bàyyi li. loolu nga ko xool lekk gu rëy gi pour lan la. nga di ko xol nga di ko xool. tàngaay yi dina yegg ni fii boo ko tegalee ñaari mbubb ñu dab la ñu da ngaa def. loolu dëgg la wallaay. li ci sa am mu ne ko mu ne ko sax lan. mu noonu de wallaay man léeg-léeg ma taxaw ne ñaaw lootu ma ma kenn joxati biir. wallaay wallaay wallaay wala jël samay saak remplir ba ma fee surtout ci ñu ko soxla wala nga teg ci jàkk yi nit ñi sol ko. nit ñi il faut que ñu am le sens du partage. loolu dëgg la ñu am sens di partager sens di dimbalante ah. sens di waxante. partage bi ak dimbalante bi dem na ci ba di assister nit ki moralement ci waxtaan. dana ko ci xel di waxtaan ak moom. ci lu wér ci lu wér. kenn waxtaan gi rek yàlla na nekk wax dëgg ci yàlla rek tax nag. loolu dëgg la loolu dëgg wax waxtaan pour yàq moom yàlla nañ ci yàlla musal. loolu dëgg la daal nañuy changé seen wax changé seen comportement changé seen doxalin. tënk ko ci diini ak naka mag ñi daan defee rek ñu avancé. loolu dëgg la li may wax toujours naan bu ñu sotti jikko yi tey bu ñu sotti ci ay milliards waaye avancement dinañu jafe xeexay bari rek. du sotti du sotti ndax ay milliards. du sotti du sotti waaye jikko yi moom changé. xéewal yi topp ci. Mhm. mu lekk ci jàmm ak salaam kenn ku nekk ànd ak dal. loolu moo am donc wallaay loolu la. kenn mënu fee fàggul doom fàggul ci sët fàggul ci doom li nga koy fàggul mooy yar ko. wallaay loolu de gën gën. wallaay yar ko bàyyi ko bàyyi woon ay mhm. immeuble. te ngi mhm. leen mi ngi ni immeuble yi jariñul dara day daanu. mu noonu mu ngi noonu nag. te mu ngi noonu loolu mooy li nekk nag yaral sa doom mm-hmm. boo koy yaree teg ko fa nga war a teg jàngal ko diineem na nga ko war a jàngale jàngal ko mbiru àddinaam na nga ko war a jàngale bu ëllëgee moo lay raw wallahi loolu moo am wallahi loolu moo am loolu moo am kenn ko da ngay ñaan sa doom wallahi waaye loo fi wer ci xettaluwoo ci mbokk mu néew doole mm-hmm. loo fi wer ci xettaluwoo ci ki nga dëkkal mm-hmm. di rëcc mu lay dégg ca du mos lu neex nga tibb jox ko. yàq nga ko. mu ngi noonu walaay ndox loolu. walaay walaay <laughs> jërëjëf jàngale bi. sax moo <laughs> tax yow yaa neexal émission bi a yàlla barkeel yéen a yàlla barkeel ñu ngi ma ñëpp kat. amiin yàlla barkeel. eh soxna Ndoye Ndongo Ngop moo doon contribuer contribution bu am solo boobu kon nag eh, lu ci jub rek ci mbaaxu suñu boroom la lu ci xaw a. ki tamit ngeen xam ni nit moom matul ñu ngi nuyu daal ñëpp nag wax dëgg yàlla ñoom Adja Alimatu Mbaw di ko ñaanal wér ñoom Kumba Diop Sopp da baax ñoom Looti Li Looti Caam ñoom Fat ñoom Baro tabarakallahu ñoom Cerno eh, sulaiman Ba eh, Sow marabu macha allah ak tabarakallahu mbooleem mbooleem mbooleem mbooleem auditeur auditeur yëpp rek insha allahu duñ leen fàtte ci ñaan bu leen ñu fàtte asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa